rahmatulahi taala wa barakatuh Serigne Souhaïbou Mbacké responsable politique euh, à Touba euh, ci coalition Madické 2019 ñu am activité bu am solo buñ doon def tey ñu gis ngeen def délégation bu hmm. nga xam ne ñoom nekk ci hmm. li ko waral mooy dañu tolloon ci parrainage bi xam nga ñëpp xam nañ ne suñ candidat dafa xawa a yéex a tàmbali parrainage am ci Sénégal particulièrement Touba nga xam ne bi muy engagé wu daanaka màggal gi tàmbali na benn semaine avant màggal ñu bëggoon na dëkk bi yëg ne ma Madické tàmbali na parrainage am waa dëkk bi am nañ participation bu am solo boo xam ne dañ ko war a def ci parrainage bi loolu nag taxoon ci biir loolu ñu sensibiliser leen wane ne dëkk bi candidature président bi di ko lu ñu yàkkamti woon la absence bi naqari woon leen ñu waroon leen a won nag leen li ngeen soxla woon ñëw na ñëw googu nag moo taxoon tey ñu ànd ak population tubaab bi génn ci dëkk bi fu mel ne marché Ngiraaneen ak fi ñu soññee fépp dem fa xam ngeen ko yéen ñi ñu àndaloon def liggéey bu am solo wax dëgg yàlla. am lu am solo yu lu ci feeñ mooy <clears throat> Touba gis nañ ne président Madické Niang euh, moom rek lañu soxla ci candidat boo xam ne si euh, élection 2019 yi ñëw yii di ñu dëgmal moom rek lañ ci soxla ndax li tax moom lañ soxla mooy dafa doon produit bi Serigne Touba boo xam ne si meññeefu Serigne Touba la li tax mu doon ko mooy dafa doon koo xam ne si fi Serigne Touba daan jaarale mag ña di leen tërbiyee fa la jaarale ay waajuram ba meññi moom kon meññee fa Serigne Touba nit ñun ñi niñ doone ay meññee fi njaboot Serigne Touba kon buñ demee ba senegal toll ci ak jaaxle ak ngëlëmte ak gàcce gu day gu day ne gi ñu gi gi Macky Sall teg Sénégal kon dana jaadu ñu demandé ñun Touba ñu andi candidature Madické bi ñu ko defee nag. ma dikk fekk nañ ci loolu ñun tamit ñuy population Touba fas ko yéene fekk ci lim ñu wax te ñuy ñuy particulièrement ñuy wax ne Touba nañ jël seen i dispositif ci élection yi ñu dëgmal parrainage bi des na buñ gàmmoo bañ ba noppi danañ defar lu mel nii collecté ko incha allah waaye bu loolu jàllee ñi ngi wax population Touba nañ jóg taxaw li ñu naqari ñu saafaral ko suñ bopp Touba nag képp kuy saafara yittey Touba yaay saafara yittey Senegal. te ñun gis nañ ni président Madické kenya pare na pour génné Sénégal ci ndëgg sarax gi mu dëgmal ak coono yi yim nekk mu génné ko ci ndax nit la ko ci mom rek lañ mëna wax ci candidat yi ko ci dafa social avant muy politique avant muy don candidat bi mu doonee taalibu Serigne Touba rek la socialoon nit la itam candidat la bo xamné ci si itam ñun ñëpp def nañ ben remarque ci candidat yi xew léegi Sénégal ñëpp dañoo japp ne dañuy oldopsi mouride moom nag ñëwut di hold up si murid murid ñoo ko war a hold up pour mu doon seen candidat loolu pour ñu def ko nag mooy lii nii ñu jógal suñu bopp jël suñu propre responsabilité maanaam pare ne ko en même temps woteel ko tey loolu buñ ñu demee ba ci kanam danañ ko gis man maa ngi leen di jox rendez-vous saa buñ officialiser candidature yi da ngeen xam ne Touba mi ngi ci loxo président Madické Niang incha allah taala li taxoon ngeen wax ci terrain bi eh, mooy eh, ñu parrainer Maître Madické Niang. Hmm. est-ce gis ngeen nit jox nañ leen ci bopp. waaw loolu moom jox gi bopp dafa jéggi dayoo ndax yaakaar naa liñ pare ne tey jii ci bis bi wax dëgg yàlla jéggi na dayoo ndax xañ na xataayu waxtu wi la waaye ku mën a génn collecté lu jege trois cent ci ci lu matut cinq heures de temps ndandax neuf heures lañ joxe woon rendez-vous onze heures lañ départ treize heures quinze heures ñu wàcc nga mën a collecté daanaka lu jege trois cent jàpp quatre cent loolu du caaxaan. kon nit ñi jox nañ ñu baat ñun kay ñoo mënta ag ci nit ñi ba liñ ñu wara jox ñu rek ñu récolté ko. lool mhm. lool rek moy suñu jafé jafé yeex ge dor ci mhm. département bi est-ce que euh, du len empêcher ci nombre bi nga xamni mom ngeen soxla fi ni euh, nombre bi duñu ci empêcher ndax ñun au lieu ñuy jóg di collecté ji tay dañ doon def lii rek ngir signal bu am solo buñu wara woné ngir sensibiliser nit ñi xamal len li ngeen soxla won ñëw na mhm. waaye loolu du andi problème ndax population bi ñoo ñu woo di ñu ñëw di leen di leen di leen parrainer xam nga ki lay woo bokkut ak yow ki ngay woo ñun ñoo leen waroon a soxla malgré soxla nañ leen de waaye ñoom ñoo jël seen matuwaay pour fépp foo xam ne responsable nekk boo xam ne président ma dikk lay liggéeyal nit di ko woo pour mu ñëw parrainer leen. tey yéen journalistes yi am ngeen ci ay preuve yu leer yéen ñi nga xam ne yéen àndoon ñun ci liggéey bi gis ngeen nit ñi ni ñu engagé woo ak ni ñu déterminé woo ak sax waxi xol yi ñu yëkkati ngir jëmbi Serigne Touba ak doon gi mu doon taalibi Serigne Touba doon koo xam ne si nag mooy candidat bi nga xam ne mooy wootee Touba dëkk Touba doon candidat Sëñ Touba kon waa kër Sëñ Touba ñi ngi leen ci xaar njaboot Sëñ Touba ñi ngi leen ci xaar particulièrement nag Sénégal moom mënut a jag mukk te ndawul Sëñ Touba dafa yor réew mi. waaw waa Nations Unies ak dogal bi nga xam ne ñu ngi koy sàkku te te jël ko euh, ñu bëri jàpp ne am yaakaar ci ne Karim Wade dina ñibbisi est-ce que bu ñibbisee du empêcher candidature Maître Madické Niang. alhamdulilah rabbil alamin bu bu loolu amee dafay gën a yombal suñu liggéey parce que président Madické Niang kenn xamuko ci wax ñaari wax dafa waxoon Sénégal ñepp lu leer daf leen waxoon ne leen Sabu Karim Wade ñewé li yor Macky Sall bayiko mu jakarlo li yor ma boole ko li yor ñu and dem élection li li euh, Nations Unies def nak Sénégal la ko defal parce que doomu Sénégal la Karim Wade ñun ñoko jël suñ ciobaré def ko muy candidat problème bu Macky Sall tek ci réew mi dictature gum gum installé ci réew mi mo di problème candidat candidature Karim Wade kon ñun loolu Nations Unies ñun la ko defal ñi ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moom la dara tawut maanaam Macky Sall mi nga xam ne moo nekk ci réew mi di fitnaal askan wi di fitnaal ñi nga xam ne ñoo ñoo ko jox kattan tas xalifa seen roo yi kilifa diine yi mu tas seen diggante kilifa politique yi mu tas seen diggante ndax moom dafa dem ba li li état yi daan jëfandikoo muy armu xaalis sax da koo weesu léegi dafa mel ne ay xiram ak i fitis la jël pour bëgg a toutes les familles religieuses wala famille politique amul benn famille politique bu nekk Sénégal boo xam ne am nga jàmm ak sa morom léegi kon loolu li ñu war a mën a gën a ñaan rek mooy yàlla suturaal ñu nasaxal kattanam ak man-manam ak pexeem ak xalaatam ju bon ji nga xam ne moom la yéene Sénégal contrairement li ko Sénégal yi yéene contraire bi la leen kon ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu moo moom moo ñu mën a génn ci jafe-jafe ñu nekk maanaam mu nasaxal kattanu Macky Sall ak man-manam ak xalaatam ak képp ku koy xalaatal xalaat bu ñaaw ci Sénégal yàlla jëlee ko fi tegal ñu fi président Madické Niang ñu mu yóbbu Sénégal fu mu ko bëgg a yóbbu ñu dem ak jàmm ci biir loolu itam may may sant di sant sama collaborateurs yi nga xam ne ñoom laa bokkal di liggéey ci président Madické Niang ñoom ñëpp ñëpp ñëw dëkk bi dafa bari ay empêchement waaye teewul ñëpp jigéen ñëw nañ gis ngeen leen nii góor ñi ñëw nañ gis ngeen leen ñoom ñëpp ñu ngi fi kon li am solo rek mooy may lancer appel di képp koo xam ne si am na engagement bu déterminé pour jàppale président Madické ñun ñëpp bu ñu xool tay la wala suba la bu ñu xool diw la wala du diw nañ liggéey ñun ñëpp kolewu ci président Madické bu buñ nekk diw sax mooy suñ personne morale déedéet ñun ñëpp mennum président Madické la ñuy liggéeyal nañ am tafu ci ginnaawam liggéeyal ko li mu bëgg ñu xam ko def ko li nga xam ne da koy moytu te nituk jàmm boo koy liggéeyal da am jàmm yow ci sa bopp ñun nag ku ñu gis xam ne niti jàmm lañ kon loolu la ñuy incarné di ko ñaan di ñaan Sénégal yàlla wàcce fi jàmm defal Cheikh Mamadou Mountakha wér gu yaram ak fan wu gudd ba li mu bëgg a liggéey Serigne Touba mu liggéel ko ko ndax damay rappeler rek ne président Madické Niang ci li ma leen doon wax léegi ne leen Serigne Touba rek a ko ñor musta jéego jéego benn jéego wala muy wax ak nit ci bataaxal wala muy wax ak nit ci téléphone te sëñ si sëñ xalif central di Mouride Cheikh Mamadou Mountakha jox ko ndigal kooku loolu nag ki koy def sëñ Touba la doyloo moom la yaakaar moom la teg ci ginnaaw moom la ci kanamam Macky nag ñi ngi koy dénk. ñi ngi koy dénk dénk boo xam ne si ñun Sénégal gépp ci teg bët mbër mu ne jéemal na ko dara waaye nag na xam ne Madické Niang moom mayuñ ko mu xool ko sax bët bu fattu lu ko dal wala lu ko laal rek xam nañ ne moom te loolu ñi ngi taxaw jàmmaar la fa fas yéene lépp lu teg pour lalli ko danañ ko danañ teg pour lalli li mu teg moom it. waaw xam nga Sénégal ku fi nekk am jàmm xamoo li xew man damay faral di wax ne Sénégal ku xam Macky Sall li muy prôné boo amee boo amee xel mu dal. xamoo li mag Sall yi def ñun am nañu tiit bu baax ci xew yëpp ndax xam nañ nag duñ toog ba moment bii ñuy wax waaye danañ danañ prévenir ndax fàggu moo gën faju ñun daal suñ candidat lañ am moom lañ yaakaar ci soowe Sénégal askan wi moom la yaakaar ci Séné soowe Sénégal bis bu dof-dof loo ba def ko li muy def yeneen candidat bu soob al dana xam ne moom ñun la loolu ñu ngi koy bàyyi la xel Sénégal te lépp lu def danañ danañ taxaw jàmmarloo ak ñu ngi jégalu di gërëm presse bi di leen sant leen xamal ne yéen suñu collaborateur ngeen fas nañ yéen lépp lu ñu def ñu ànd ko ak yéen surtout yéen ñi nga xam ne ay suñu morom ngeen tàllal nañ leen loxo ci bépp liggéey boo xam ne dañ koy fas yéene mane euh, ndax liggéeyub Sénégal damay wax ne ñaar dañ ci am responsabilité muy kilifa diine ak presse bi ñooñu nag damay wax léegi ne xale lu góor lu yor réew mi mi ngi leen di def façon déstabilisation boo xam ne si yàlla nañu ci yàlla musal ba am ndax bon na li a ñaaw ci Sénégal mooy ndawlu ndawlu bonub xol ndaw dañ koo mënoon a xam muy am yërmane di am ñeewante loolu lañ xam ci Sénégal waaye ndawlu dem ba Sénégal am ci moom confiance am ci moom yaakaar mu mën a bon xol ba ñëpp ñuy liggéey entreprise privée yeeg ñëpp Sénégal